nga ñëw teewee làmb ndax ñun tey lépp lu ñu am rek ginnaaw yàlla ak yonent bi ak Sëriñ ak suñuy waajur làmb moo ñu ko may. Balla Gaye 2 jaadu na ñu bëggal amateur yi jaadu na amateur yi gis nañu jaadu na supporteru Balla Gaye 2 yi gis nañu. donc tey la yaakaar ni Guédiawaye mooy ñëw wala yéen di ngeen a booloo def gan wala la. waa Guédiawaye encore une fois rek ma waxati ko yàlla nag mooy xam boole. mais boole yi nga xamante ne moom la quartier yëpp di def Guédiawaye moo ko njëkk a def mobilisé wu mbër bu am combat sa morom ñëw soutenir la jàppale la ñun loolu lañ xam mosoo leen gis ay mbëru Guédiawaye yëpp kenn ku nekk ba muy bis ñëpp leen taxaw soit que gis ko nga ñàkk koo gis parce que drapeau Guédiawaye la moo tax ñëpp la ñu yéen a jàpp na maa ngi ñëpp am jàpp. dimanche sa rakk di bëre Ama Baldé ko wax gis Balla tey loo koy wax. du ko ñaaxaat rek. du koy yokk di ko xamante nag mooy doomu fal Balde. di doomu Fodé Doussba. di doomu Dubalees. ay baayam lépp luñ doon woon ci làmb dañ koo jël wax jooju cax ay baayam lépp luñ doon woon ci làmb ji ñun bañ dañ ko def kon maa ngi koy ñaanal ndam. yal na ko yàlla may ndam ci barke du Salaay Sam jël bu set ama mbër la. champion la te ko xam naa la ne benn jour li ma foogul woon ci moom laa laa gis ci moom. ay mbër kaamil la yal na ko yàlla may ndam. a mbër bi nekk moo Ama Baldé. ama boo ko xamul xamoo ko. Ah. mais man xam naa ko yàlla na ko yàlla may ndam te xam naa li mu am toll nañ ci làmb jaaduwul ñuy wax lii ak lee ah. ah xam naa ne champion la ndaa daan kulli fan yàlla na ko yàlla may doon. ñu doy na borom xalaat tey tey bëri tey gis ñoom ñaar tey ñoom ñaar ñoo tax nga déplacé wu ñëw ci arène bi. waaw c'est normal rawatina aussi yi nga xam ñu ngi saan lamb ñu ngi suivre lamb lamb ji espoir nekk lamb ju neex ba ñoom bu ñu xewlee ñun dañuy ñëw bu ñu nekkee ci dëkk bi ñëw. maa ngi ñaan yàlla Gackou 2 yàlla may ko ndam jël bu set bi ndax baaxaayam yaroom respecté doomu aadama Boucher Ketchup du ma wax ay waxam ndax moom lépp Balla Gaye maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko mais ñoom bu ma ñëwee ci làmb ji bokk nañu tax ma ñëw di gërëm aussi sama suñu président Pape Mama Fall mi nga xamante ne aussi lépp lu école bi nekk moo ci ak ma ko géej waay yëpp ñëpp ànd ak moom di liggéey loolu ci ne yëpp vraiment moo taxit làmb jaa ngi nii ñëw nañ fekk stade bi fees ñëpp kontaan. Pokola Baldé dafa wax ne moom école de lutte Balla bàyyiwul kenn mag ba ci suuf dañuy ñëw kenn par kenn ci gàkku lay commencé waxam boobu tey daa mel ni wax boobu tey jógagu ci. non non loolu wax xale la rek loolu du garaaw loolu sport la mais gàkku doo ko xam te moom fulla ak la bi nga koy xamee. Ah. kii sëtu Falaye Baldé la tey. waaw loolu dëgg la. sët bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. bu ne Falaye Baldé ne Double Less ne Fodé Doucoumane. ñun ñoo bokk benn maam bu ñu meññ bu ñu jugee dëkk ba ñëw ba Dakar waaye kii rakk la xarit la lépp la dëkkandoo la moo tax ñun moom lañu am droit wax ci moom du ko ñaanal yàlla may ko ndam incha allah na ko am. sa digganteeg moom sa digganteeg gàkku de. waaw mooy li ma la wax doomu aadama yi. fonk lu muy def bëgg lu muy def ba tax na daal ñu ndam rek lañ koy ñaanal te dina ko am incha allah. fu mu toll. toll ma fenn maa ngi ci li ci war a nekk rek. mais nañ la xaar fii. incha allah. maa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla. c'est normal géej way xewle. su géej way xewle lu ma jàppoon dama koy bàyyi dax man géej way laa am géej way laa tiitaroo ah kon nag su géej way xewle lu ma jàpp dama koy bàyyi te combat yi dañoo ñor dañoo ñor. waaw nee naa la buuse su jëlee caaxaan jël comédie bi teg ko fële kenn mënu ko kenn mënu ko ci làmb kenn mënu ko kon nag li ci des lan la fulla ak fayda jom te liggéey na entraîné na mën na bëre kon nag li ci des xam na ko ñëw wane rek fulla ak fayda ak jom daan ñu dem géej way feete ko ñu jógee foofu dem ci gàkko de nee leen wéyu la bandi la sàcc la agresseur la booy xamuñu wëb gàkko de xamuñu ko après la ñu comprendre kan mooy Gàkku 2 wuyu la sàcc la agresseur la bandi la waaw su ma jógee xale yi naan pokola pokola pokola Gàkku wuyu la de bandi la te ci kanam lañ xam ne Gàkku bandi la ah, mais ñoo ko juddlu ñoo ko juddlu yar ko màggalu ko Gàkku voilà ci pokola ay Gàkku 2 xamu leen Gàkku 2 ay xale ngeen ñun xam nañ koy Gàkku ndax ñoo ko juddlu yàlla na yàlla suturaal ci kanam tuuti ok beneen yokkute la boo xamante ni da lay am da lay indiwaat ci làmb yokkaat sa jom yokkaat sa moral indiwaat xel mi carrément xam ne tey jii du yoon may ñàkk. mais xale bu os bi ngeen di bëree bi Pokola fit bi sañ sañu Pokola Baldé mais gàkko nag kenn du ne deux gën a gaaw bàyyi pee bi gàkko dafa wane boppam bëri ay combat der combat yu métti waa nit nag Pokola xale la buy ñëw gàkko nekk koo xamante ni dafa war a dem. tey lamb ji lamb expérience la ak xale quoi waaw gàkko na ko teey bàyyi ko si biir mu ñëw imposé si mu daan. pour mu ko waxamaana laaj. lamb ji ne metti mu metti su bëggee mu sedd mu sedd. moom gàkko moom gàkko waaw. mooy diriger non boo déggee ma wax lamb laa lay wax dama la gàkko tey su ko neexee lamb ji metti bu ko neexee lamb ji yomb ndax gàkko mën na taxaw bu ko neexee heure bu Pokola nee bëreet mënu ko joxe jàpp. waaw waaw bëri moom Ama Baldé Modou naa dimanche si heure ñoom ñaar fii moom dana mel ni bàccum gerte Ama Baldé Modou Lô comment. waaw la joo xamante ne lamb jooju moo war a indiwaat lamb moo war a defaraat lamb moo ñu war a la nit ñi xam ne lamb suuxul quoi waa nekk lamb joo xam ñoom ñaar nag ku may sa morom virgule ñàkk lamb. ñoom ñaar. non ñoom ñaar pare. non forme ñoom ñaar ñëpp pare parce que Ama Baldé Modou Lo xale ay toxo kon làmb joo xamante ni dinañ indi doole dinañ indi contact lépp. mën nga dire làmb jooju. ji man man gaw ma dina ji moom gaw mu yàgg quoi. non bu tax bëri. ji. bu ñu bu ñu bëre tampon ama mën na am dara su lamb ji diiree waaw Modou Lo mën naa am dara. mais ama lamb cinq minutes moo ko arrangé. ama lamb deux minutes moo ko waaw. non loolu ama bala seetaan na lamb yëpp parce que daa am koo xam sa manin waroo ko bàyyi ama combat bi warul am lu muy wàññi ci maninam bi jël coup moo tax muy daan combat bi day jël droit dem daan waaw. moo ama balde waaw. ou Modou Lo encaissé ka ba du ko encaissé bu nekk ku xeex ak Malick Niang seere tabaati mën ngaa bëre ku nekk mais Modou Lo dafa wane boppam ci làmb Modou Lo moo tax xiibor gëmaat ci làmb Modou Lo mbër moo xamante ni fu mu egg moom moo imposé ba egg fa lan nga koy dawal moom Ama loo koy dawal si Modou Lo non man li ma koy dawal si Modou Lo man waar bi siflee bu Modou Lo taxawee Ama Baldé bu mu déglu dara si Modou moo Modou suma ko doon wax dama koy wax mu déplacé xeex benn benn. nga diis trop trop macha allah saa ñu fi toog dara la ñëpp a ànd ak yow bokk man bi ma génn ak léegi maa ngi sant yàlla parce que samay noon ñi ngi feeñ ndànk par ndànk maa ngi gis lu ma gisul woon. da nit ku dul dox te amoon noonu ah, maa ngi doon sonn ci nit ndekete nit ki teguma fenn. Ah waaw ma xam ma ma xaw ma ko woon. bëri non bëri na ndax keroog. boo ñëwee fi ñu ma doon àttee. nit ñi bëri nañ fa torop. mais ku nekk li nga wax dégg naa ko ku ci nekk fi nga waxee dégg naa ko man gisa man sama xol su ma ko yàlla fayee du ma sonn. ndax damaa sonnal ay nit. jàppale ay nit. te nit ñooñu ma jàppale tey fay naaru ko toromam mais nag yàlla baax na. man ñaari yoon laa musa dem police. ñaari laa musa dem police. police benn bi laa musa dem police benn bi ma jàll 100 mètres ñaar yëpp liiroo tax sama mag. waaw benn bi dara waaw sa benn bi sama ñaari mag a doon jote beneen bi mooy histoire bi paas. waaw mais moom li ko war rek la def ah. parce que man liiru guddil naa ko ba cëgal na ma liiru wàccoo naa ak moom. ci bi noonu la demee waaw. Sall lii mooy yee sëriñ yi waaye Njambaan waaw mu ngi doon doomu ndeyam ndeysaan doomu ndeyam woon Njambaan foo gis buuse gis ko fa barke Sëriñ Sall ànd bu sincère ànd bu dëggu wallaahi ñu ngi noonu Njambaan amiin waay amiin waay yal na yàlla may ndam ndeysaan waaw waaw man sama nit Njambaan sama nit la Njambaan sama nit la waaw buuse ndeysaan tey mooy bëre yal na ko yàlla may ndam. waaw amiin amiin daal yal na ko yàlla may ndam. ndeysaan mu ngi noonu mu ko di réew ak coach bi. waaw voilà.